asalaamaaleykum sama gars yi man daal tey daal seetaan naa maîtresse d'un homme marié mais am naa lu ma métti premier bi mooy Jalika am na lu ko métti mais nu ko fajee nii kenn du ko def nii parce que lu mu def nii violence la lu mu def nii violence la te en plus biram aussi boo yoree sa foyer kenn du gérer nii. te en plus muy naan nit ki doo ko bañ ba nga koy accusé yenn yi mais joor moo def lii du kenn. waa asalaamaaleykum eh, yéen waa euh, surtout lu xew TV eh, ñu ngi leen nuyu bu baax eh, et di kontaan bu baax ci tey série bi série Jalika bi Maîtresse franchement neex na lool am na solo lool et hmm, man ku mel ni Mariam wax dëgg yàlla. jigéen gu ma neex la ca ni mu doxale noonu et noonu ak la war a doxale ndax euh, euh, euh, waajuram nekkul waajur bu baax waaw waajur bu baax kon noonu rek la mën a def pour waajuram waxu dëgg bonul nag loolu tamit def ko ngir bañ waajuram déedéet parce que waajuram ci boppam moo moo moo moo wone moo moo moo moo jëflante ak moom jëflante bu bon et moo tax noonu rek lay mën a réagir waaye ku bëgg ay parents lan kon yaayam la ko war dëgg euh, et puis euh, benn bi tamit muy Moustapha franchement nekk na góor bu baax ndax euh, jigéen bu amee ay problème ne si yow fi waroo profité ci problème am yooyu ba ca topp tamit ku mel ni joor joor moom nekk na jigéen gu bon franchement nekk na jigéen gu bon et puis xale xamul dara lépp la mën a seq ak yaayam et puis waroo ko fayiku ci xale bi euh, ndax parce que moom bu amoon ngor war naa xam ne Jalika mas na koo ji teraanga waaw Jalika tamit euh, nim nim réagir tamit warut a réagir noonu dëgg la euh, doom foor na ci xol lool waaye dafa war def ndànk teg lépp su yoon ndax jamono ji ma toll foo xam ne fajal sa bopp boo ko defee leneen mën na la cee fekk kon mënoon naa tey ginnaaw am na ay preuve photo def lépp yóbbu ko si yoon ndax kenn ku ne xam na ni yoon moom ku ku ku ku feer ci xale la kuy aar xale la et beneen bi tamit beneen bi stop topp moo di euh, ku mel ni biram biram moom moom moom moom moom moom nekku responsabilité daal moom day moom lu bari da ci décasé responsabilité ci man mënuma ko comprendre ndax man xamoon doom ni mu doom ni mu fooree et puis sa doom nekk si kër loo xamante ni mosu koo dal dal ko franchement war ngaa xaw a mën a ñaaw njort tuuti ci ci ci ci ci ci ki fi ñëw ku bees ki fi ñëw ki xamante ni euh, su soxla su bees waaw ndax parce que doom ni mu fooree kooku dëgg la yaayam euh, bëggu Jalika waaye comme Jalika ni mu ko wax rek dana ko soyee ndax waaye nag yaayam ni mu bañ bañ Jalika dina am yërmaat ci ab kon war naa xam ne fii loolu euh, coor rek moo ko mën di def ndax ca man tamit gis na coor ni muy nekkee xale bi moom xam na ni coor dafa bàcc xale bi kon nag moom loolu war na ko lijjanti nekk responsable di lijjanti loolu waaw parce que jàngat yi dala ci amoon ku tamit tamit kooku nga xamante ni mooy euh, yaakaar naa sëru Mbacké la ni mu doxalee noonu dafa mel ni bëggu Jalika quoi dafa mel ni Jalika neexu ko quoi assi loolu daal laa ci amoon la ma si wax waaw mooy ma xamal ne daal neex la lool wax dëgg yàlla ñu ci jànge yu bëri di leen ñaanal rek mm, site bi yàlla gën koo def ma dem ba am ay tale maa ngi jégalu baax nag sali li xew TV nuyu naa leen jaaleen bu baax mais di wax tey moom maîtresse kontaan naa ci Jalika Awa Kay mun bëgg naa lii parce joor dafa dafa dafa bon yow naka ngay fekkee doomu jàmm moom lu ci yoonam xanaa nga di ko dóor di ko toroxal bu ne laa dama bëgg a lekk nga lànk damay naan nga lànk nga bëgg bàyyi ba papam liggéey nga di ko dóor mais tey moom li ko Jalika def kontaan naa ci ne ko dóor ba toog ci kaw xam ne du moroomam du day jaay bandi dina xam ne moom moom la kanta rakki nag moom na toog foofu rek comme yaayam mënu ko wax dëgg bi su ma doon moom kër gi duma fa demaat sax foofu laay toog parce que yaay ji moom bëgg su ko bëggoon avant dina ko wax dëgg gi mais dafa làng nangu ko wax dëgg gi. asalaamaaleykum ah tey moom neex na neex na waaye nag moom joor moom bon na trop trop trop li def xale bi moom ñaaw na dóor ko ba ginnaaw gi dagg nii te nag moo wax dëgg yàlla moom moom moo tooñ yaayam ndax moo nangu jëkk jëkkëram ba pare ëlbati ko soxor man li tax mu soxor ci xale bi daal man moo ma jaaxal jaaxal na ma trop trop man li tax mu bañ xale bi noonu. Marème nag moom man li ma ci jaaxal Marème moom dafa xaw a ëppal tuuti ëppal na trop trop trop trop trop. asalaamaaleykum yéen xew TV maa ngi nuyu di bu baax géej na maa dugg nag xaw na am kii rek ñàkk temps mais yéen si jàmm bu baax ah la maîtresse nag tey daw na yaram tey moom gën a dinaa daw yaram wax dëgg fa yàlla. man man Jalika man dama ko yërëm rek koo xam ne du am bànneex mukk ci série bi yërëm naa ko trop waaye mi ngi topp xolam ba fi mu toll nii de domicile la def ndax dafa fekk joor këram mënoon na ko fajee neneen ba mu des nii ñëw di xeex xeex faju dara ak xeexet faju dara li ko xaritam bi wax mami mooy dëgg te xam naa ne jour bi bi mu mu affaire bi bu ko mami téewutoon bu demee moom dina gën a garaaw comme nii wax na ko papaam papaam tamit moom it bawut xel bàyyiwu ci xel kon waroon nay topp di topp ba am preuve bu ko leer naañ mu door a jëf waaye nii mu demee nii moom tey jali ko juum na vraiment moom juum na trop waaw juum na lool sax maa ngi jégalu nag bu baax sama xol moo tooy moo tax. salaamaaleykum kontaan te dama kontaan nga tey li ma Jalika wanal Dior ndeg Dior dafa bon Dior dafa méchant Dior li muy def xale bi yépp lii daal mënu koon ñàkk dal ci xale bi Dior day dóor xale bi di ko maltraité nu mu ko neexee te Jalika nu defal ma xale bi ni mu dafa Dior tey dafa ma neex Dior dafa bon salaamaaleykum waa maîtresse na ngeen def suma waa groupe ba yéen a ngi si jàmm maa ngi leen di ziare yéen góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp ni ñaan yàlla suñu borom sama kàddu fekk li di jàmm yi ñëpp kontaan nan trop macha allah tey moom ci Jalika laay ñu moom wax dëgg yàlla Jalika tey jii ndeysaan loolu la naan doom diggante nday ak doom dafa jigee jigée koo xam ne foo laale doom rek bay ba nga xam ne nday nga laal te biroom tam saan Jalika dina ko si mété te yëgu si dara dara lépp joor la ndax biram yëgul dóor yi mu koy dóor yooyu yëgu si dara mais Jalika day jàpp ni biram da koo yëg te yëgu si dara dara te joor rek moom moo bon moo def moo bon moo tax mu def loolu mais Jalika tam waru woon a dem ci kër ga fekk ko ci biir kër gi di xeex ak mu waru woon a def loolu ndax loo gis lu nekk àdduna loo gis lu ne tey dafa baax daal li naan tey ci ndox la gi waaye si nit la gën a jékkee ndax mënoon naa tey ba réglé li mu bëgg a réglé lépp ba récupéré waat doom ba mu ñëw si moom te loolu lépp du ci am du xeex du def dara ban teg joor ci yoon mais ne mu def ne day mel ni day tooñ tooññat bi daal te si ne am na nu muy demee ñoom mën nañ koo sosa ak maire bi mën nañoo sosa Jalika loo xam sa Jalika defu ko wala ñu wedd ni du moom wala dara moo tax dafa waroon a téye ba waxtaan ceeg ba pare doo ko def ni mu def wala ko xarit wax mu def ko dafa waroon a téye daal wur woon a dem waaye nag diggante ndey doom moo jige jige koo xam foo ko laala rek xolam day jóg loolu la wax dëgg yàlla kontaan na neex na trop trop trop yéen a ngi yee doomu aadama yi yéen daal macha allah macha allah yal na yàlla la fa cat daal lépp lu ngeen bëgg daal yàlla na leen ko yàlla defal série bi daal wax dëgg yàlla moom bu ni série yëpp meloon ne kon ñu bari dinañ gën a yeewu gën a kii danga ko même da ngay am sax yenn saa ay problème sax mais boo ko seetaanee xool da ngay fàtte sax problème bi nga nekkoon dafa wuu macha allah man daal ma mën a macha allah kontaan kontaan nañ daal yéen ñi ko jiiteeg yéen ñi koy joué yéen ñi moom télé beeg ñi koy dégloog ñi koy seetaan ñëpp yal na leen yàlla suñ borom defal yàlla am jàmm nga xam fu mu am jàmm yal na kontaan nañ torop na torop kaar macha allah jërë ngeen jëf yal gi. salaam salaam nekk mbaa ñu pañ si jàmm ça va defal na ma joor li ma neex. defal na ma joor lu ma neex joor dafa soxor jigéen du soxoree nii si doom jitle ah joor moom ubbi na euh, jigéen yi xamante ne moom nii la ñuy def seen doomu jëkkër yi lii moom baaxul moom lii moom jigéen du ko def doom doom moom lii moom baaxul soxor na torop torop torop merci. salaamaaleykum waa maîtresse ah seen bi neex na trop neex na trop waaye nag joor joor moom baaxut moom joor tax na nag jigéen yépp buñ jugee ci kër yóbbaale seen doom lii dafa metti dóor ko ba yaram mi def ay kër ga noonu Jalika nag mënoon na ko doxee neneen loolu nii mu def asalaamaaleykum waa Lu Xew TV yéen a ngi ci jàmm waa ñun ñu ngi ci jàmm alhamdulilah mais série bi neex na série bi tey neex na kontaan naa lool sax Jalika num Jalika moom Jalika moom mention spéciale waaw nu mu def joor moom ànd naa ci waaw ndaxte joor warul gaañ xale bi xale moom danga ko war a yërëm téye ko jàppee ko comme doomam xam nga joor su demoon su doomam bu ko defoon noonu bu ñu ko defoon noonu doomam du ko neex daal bu ñu ko defoon doomam du ko neex moo tax bépp bépp yaay dafa war a xalaat lii dafa métti ci xol waaye nag maa ngi naan maa ngi maa ngi naan Jalika na ko dóor ba gaañ ko fu mu ko xojee na dee waaw na dee noonu laa ko man daal lool laa ci xalaat waaw marem tamit marem tamit sama xarit la ki nga xam ne dama ko bëgg sama xool macha allah waaw moom dafa am fulla dafa am fulla lool sax waaw tamit mu wax ci biram waaw biram tamit moom itam tey moom tey moom def naa rôle papa waaw tey moom tànn nu mu def moom ni rek la ko war a defee waaw nee nañ nee nañ gëstu ci école bi ba xam nañ gëstu ci école bu dee di école lañ ko dóoree maal xam nga moom dara mënoon noo wax leneen xam nga fu mu juumee mooy fu mu waxee dangaa bañ dangaa bañ sama jabar mais warul ko wax loolu warul wax loolu moo boobu rafetul warul woon wax loolu waaw te gaa kontaan nañ ci série bi macha allah. sant naa leen ziar naa leen bu wér a wér a wér jigéen naa leen nag kontaan naa tamit ci sérité bi nag neex na neex na lool Jalika moom tey kontaan naa ci moom gën a kontaan na ci moom sax laay wax waaw ndax biram daf koy fontoo waaw dégg nga li ko wax gis nga niñ liggéeyee doomam mu koy wax mu naan ko dangay fabriqué Jalika xam na ni moom nit bu sincère la lu lay wax rek dafa nekk ci moom moo tax tey nim def joor kontaan naa ci torop waaw kontaan naa ci muy xaritu Lalla bi tamit ni mu doxalee tey waru koo doxale waaw ñëw ci kër da nga war a defar comme li muy conseil Lalla loolu la waroon conseil Marème mais loolu mu ko def noonu du yoon nit booy ñëw ci kër jàmbur jàmm amu fa danga fay wut jàmm mais doo yokk mais xam naa li ko maire bi waxoon moo tax mu wax loolu ma ne mais moom chaque jour bu ñëwee lu rafet lu baax rek la daan waxal la mais tey xam naa ni mu doxalee moom li ko maire bi waxoon keroog la waaye nag kër moom soo ci dee ñëw jàmm amu fa dangay wax jàmm di ko dox ba jàmm am mais doo ñëw di def noonu di wax si ku ak jaar-jaaram mën naa ñàkk côté moom mooy loolu tey daal moom cooli cooli joor la ak jalika jalika moom tey moom big naa trop ci moom ba pare jalika timit nga def attention ci waaji ndax waaji dafa mel ni gel bi daf koo bëgg nigel bi ni mu ko doon dërëjee noonu di ko wax li ko doon wax naan ci réseau bi yooyu yëpp affaire mbëggee la rek ñu ngi koy laaj yooyu yëpp di ko enquête xam naa ne bëgg na taayin bi mun na jële ka na def attention comme ni mu ko waxee xaritam bi rek waaw ñëpp leen ci jàmm sant nañ leen gërëm nañ leen li ngeen def am na solo trop neex na trop macha allah. aw ah, asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax nag ne maîtresse moom macha allah neex na. neex na trop trop trop seen film bi am na sens danga si yeewoo danga siy jëlee lu bëree bëree man daal maa bëgg Jalika Jalika maa ko bëgg bu baax Jalika li nga def coor rek moo baax si moom joor moom danga ko war a dóor bu muy bëgg dee waaw joor moom jarul yërëm parce que joor moom ku bon a bon mere joor lool sax mere naa ko trop trop trop trop bu baax laa mere joor parce que yow dama gis xale bu ndaw boo xam ne xamul dara nga topp di dóor ba di ko defal ay tâche loolu moom bon rek laa ko mën a jàppee parce que bu doon doomam du ko def nangu jëkkëram kay war na ko mën a bàyyi nag mais topp doomam di mbugal joor moom jalika loo ko def baax na si moom bu ko yërëm Mariam yow neex nga ma trop parce que Mariam yow man ni ngay dundee moom neex na ma neex na ma macha allah jigéen day am fit bu la dara deqati toogal sëy sa sëy sa njëkke loolu moom mere naa ko torop parce que ñoom moom dañ far ba mu ëpp. salaamaaleykum nga xew TV maa leen di nuyu di leen ziar leen jox seen wàccuwaay bàyyi nañ ci jàmm bu baax ah man tey dama tiital Jalika de wax dëgg yàlla ndax nit soo meree ngay ànd ak sa xel. dangay ngay ànd ak sa xel soo jiitalee sa xol rek di nga def musiba te damay ragal lii dara fekk ko ci mer na bu mëntul tee boppam ne lii damay ragal dara fekk ko ci wax dëgg yàlla joo def na lu ñaaw Amina xamul dara xale rek la def na lu ñaaw nag mais Jalika soo meree dangay ànd ak sa xel sa xarit bi la doon wax du nii nga koy faje kooku moo la wax dëgg du nga ko fajee de ni nga ko fajee du nii yéen waa émission bi ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen siyaar bu wër a wër a wër ñu ngi jéglu nag fan yëpp gën nañ dugg xëy na dafa am si lu ñu nekkoon rek mais ñu ngi koy tub bu baax mais teewul ñu ngi déglu vidéo yi yëpp top analyse yëpp ñu ngi koy topp moo nekk lu am solo di leen ñaanal yàlla rek seen liggéey bi gën a avancé bu baax a baax a baax yàlla def si tawféex ci barke Cheikh Mountakha ñi ñu bëgg a ñëw def suñu tuuti analyse ci chéri tay bi vraiment kontaan nañ bu wër a wër a di kontaan si Jalika tey moom dama bëgg si moom aha Jalika daal vraiment mën na rôlam trop trop trop trop macha allah parce que fulla ak fayda moom. nit day nekk si nit lu pare nga koy doxe di ko wane di ko jëfee te moom vraiment lépp la wane moom dafa wane ne moom dafa am ful ak fayda am lu mu bëgg am lu mu gëm te kii li mu def doomu jàmbur bi nekk na lu ñaaw loo xam ne nii mooy moom day mel ni moom mosul am doom man loolu moom moo ma xaw a jaaxal si joor en tout cas doy na waa trop lii moom maam lu ñaaw la nag ñu ngi siy kontaan bu baax a baax parce que lii ab jàngal la rek loo xam ne nii nii ñuy def ni lu am la si kër yi dégg nga ma ñëw si Kaolack ak euh, Moustapha seen couple neex na ma trop vraiment ak ni ñu réagir tey moom vraiment kontaan naa si bu wërë wërë wërë Xew TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di commentaire si film bi euh, di wax ne. première partie Jalika waaw Jalika moom daf ma neex vraiment ni mu def ak copinu euh, copain bi neex na ma trop waaw ni mu réagir maanaam daal Jalika dafa tey tey tey gi mu tey daal neex na ma trop ci moom en plus bi mu fekk jee joor ci kër ga euh, foofu moom blâme naa ko tuuti. waroo woon a fekk joor ci bis biir kër gi parce que violation di domicile la def da ko waroon a bàyyi bu mu génnee ci biti mu def ko lim koy def lim ko def na kontaan naa ci trop mais fekk bi biir kër gi moom xam nga buñ kiiwee rek dafay daal di tooñ waaw mais mënoon na ko génn ci biti defal ma ko lim ma koy defal li mu def joor moom kontaan naa mais biir kër gi rek a xaw a kii waaw euh, nag marem ak xaritu laala bi ah sama xarit <laughs> sama xarit mareem tey moom laal nañ la mais xaritu laala bi moom vraiment du xarit waaw du xarit de parce que bu doon xarit la dina def la tout def ba comme moom lu mu wax laala loolu lay def dina def la tout ba laala ak mareem ñu boo nekk nekk ci jàmm waaw jéem a nekk benn mu conseil laala pour que bu yeewa ab jàmm ak maaxeem mais ni mu bëgg a def nii moom waaw loolu moom d'accord ma ci vraiment kanta yaayu raaki moom li ko li ko daal mii baax na trop ci moom nii raaki def nii baax na trop ci moom lii rek la ñuy wax nëbb dëgg nëbb dëgg ba këtt ne joonu nga war ko wax di ko la continuer di làq mais li ko Racky def baax na dina tax mu wax vérité bi quant à nag seen diggante vraiment ça me plaît beaucoup daf ma neex parce que dañuy dund dëgg réalité la ñuy dugg un vrai amour la ñuy dund parce que euh, lu mu metti metti euh, Moustapha mu dalal di ko conseiller jéemul sàkku ci moom dara lu dul di ko conseiller teg ko ci yoon waa góor bu la bëggee nii lay def. daf lay respecté respecté say conditions Moustapha moom vraiment mention spéciale maa ngi koy béggee bu baax a baax ni muy doxalee ak Racky neex na ma trop. waaw Racky tamit moom it ni mu la xaw xaw ma neene ni ko def noonu moom kontaan naa parce que nit ki du ko nëbb di ko nëbb di ko nëbb di ko nëbb nëbb ko lépp même bu dee benn secret la sax waroon na ko ko ci mën wax waaye nangu ko ci wax dara nangu koo wax la tax ñu tëj papa ji nangu koo wax ko violé dafa metti soon mu def noonu daal noonu la xam naa ne moom nee ne moom pour mu ñàkk pour mu bañ koo ñàkk dina tax mu wax ko dëgg bi te daf koo war a wax dëgg bi sax ndag yëpp look ko war a wax ndax mëgum jëmm la war na mën a gérer boppam mu wax ko dëgg bi mu xam waaw waaye li muy def nii nii nee ne la xooma baaxul te li mu doon denc lépp tey feeñ na ci côtéem meneen côté bi mooy nee na daf koo bëgg mais man gow man koo bëgg moom mu ko doon métitalee di ko jëmale ci góor yi pour mu indil ko xaalis bu ne daf koo bëgg moom jaaxal na ma torop jaaxal na ma lool bëgg gi wax ne daf koo bëgg moom xam naa tey moom dani rek ñàkk ñëw na naa ko neexal mais musu koo bëgg da koo bëggul sax bëggu ko sax ba kay banaan dama banaan ko dama laa bëgg musul bëgg rek musu ko woon bëggee moo tax ni ko wax noonu ne ko méritoowu ma am yaay ju mel ni moom dëgg la ba tey ndax ndaxte yaay day taxawaay taxawaayu doom yaay di ko jàppale di ko jële ci bëri bari yu nekk nga génne ko ci waaye koo xam ne chaque jour luy nit ki nga koy dugal ak lu may xaas da ngay xool ci moom léegi ko lim ko wax noonu dëgg la waaw nee ne moom baaxul te lastement dong la film bi ñëwagul xam naa ne bisu film bi ñëwee dina réccu sax lu mu doon dundeeti parce que xam naa ne moom rakki dina defante moom moom dina am problème dina am problème trop nene dina am problème yaa nekk leen ci jàmm sant dañ mais maîtresse d'un homme marié film bu neex la waaw neex na trop macha allah te maa ngi doon seetaan temps yi passé ci épisode 42 bi am ñu critiquer Marème mais man je ne pas contre parce que Marème maanaam rôle biñ ko jox moom loolu lay joué te nag kum doon yow di yow le fait est que tey kuñ ci joxoon tey role bi muy man muy sama moroom muy keneen niñ la ko joxee noonu nga koy joué yow duñ la jox rôle nga ne lii du ma ko joué mënul nekk xam nga mais daal. sénégalais am na leen loo xamante ne dañ ko war a seggaat ci daal seen biir parce que dëgg la Sénégal dëkku diine la dëkku lislaam la mais li ñuy théâtre moom moo nekk ci Sénégal instant bi nii loolu moo fiy dox xamante defuñu dara loo xamante ne nii dafa bizarre wala dafa salte loo xamante ne nii nit ñi buñ ko gisee dinañ am nuñ koy gisee wala dara non non mais ku nekk ak sa avis nag kenn mënul nekk kenn bul waxee nii wala bul defee nii non non c'est impossible ku ci nekk nag sa bopp ngay demee. waaw mais daal am na yenn yoo xamante ne ni daal jarul wax parce que théâtre bi nit ñi nu koy seetaan te bëgg nañ ko man mii di waxee génn daaw ma ko seetaan mais sama benn rakk mu ma doon topp na man mareetu maîtresse d'un homme marié dafa neex 2STV lañ koy teg ma ne ko ah mënuma waa ma ne ko ah man de mosuma ko seetaan ci laa ko commencé seetaan mais bi ma ko commencé seetaan ba tey du ma ko ratee te bu ma ko ratee YouTube laa koy xaar kon nag ca kaw ca kanam daal li ngeen di def neex na macha allah bu leen teggi seen tànk voilà. Euh, asalaamaaleykum euh, sëñ bi na ngeen def sama waa groupe bi ci théâtre bi bon damaa bëgg a joxe sama xalaat quoi euh, sama xalaat ci ci Jalika laa jëkke moom li mu def dafa juum warut a fajal boppam meram parce kaso mën na ko cee fekk waaw bu reyee ndaw si kas mën na ko cee fekk waaw la ma waxoon bu ci sama yoon bële neewoon naa tout le temps mbiram ak ndawam su jëkk eh, seetam bii dañuy teqalikoo la ma waxoon ba tey ci laay ci laay waxaat parce que gannaaw moom buggul xale bi ci mi ngi koy dóor dóor yu metti yi fu ñuy jëm ñoom ñaar du baax bu jëkkër ji xamee waaw bu fekkee jëkkër ji naafequt xam ba pare bacc waaw te loolu sax lay bëgg a def xam na ne xam na ne elaw eh, ay ay du ay ay monsieur dóor elaw comme yéen dóor yu metti yi surtout xale bu ndaw waaw bañ ba bañ ko kay li ko def lu nekk xam na ne bu dóor di am kookoo ko dóor mais nag keet warul woon a noonu ndax leen mën nag ca fekk voilà ci joor joor ni mu réalisé dëgg la mais nag Eh, way jur itam kenn du ko topp bu mu sës joor war naa dimbale yaayam parce que jooy na ci kanamam waaw ah, na ko nax moom bu nax moom waxtaan ak moom ndànk li li bëgg xam yëpp dana ko xam waaw jëlul sax muy gedd di dem wala bu geddeet mën na koo xabal dellu siwaat ci kër gi ñu waxtaan ñoom ñaar waaw parce que àddina beet loo fi gis am bu ñu waxtaanee bu waxtaanee moom ndànk bu waxtaanee moom ndànk rek dana dana maire bi dana ko wax lépp loolu moo gën waaw ñuy xaajaloo te moo ñu fàtte ga yooyu démb la woon waaw ñu fàtte ànd ak yaay jàpp ko nag wax dëgg yàlla gannaaw moom dong la te sa yaay la xam nga ne sa yaay la moo la jur jàpp ko hmm. àddina moom lu metti lu ne am na fi ok loolu la amoon sama xalaat asalaamaaleykum waa Maîtresse TV bi sama waa kër bi maa leen di nuyu leen siyaare di nuyu ñëpp nag di wax série bi neex na trop drama bi neex na trop am na solo trop trop trop kontaan nañ trop si bii neex na lool trop trop waa meram moom dara safu ko meram daal daf may faj daf may faj ci théâtre bi billaahi wallaahi meram moom daf may yëngal non jalika lu mu def joor moom kontaan naa si torop torop torop torop torop nag waaye nag def na trespass jalika warutoon a dem si kër gi di ko attaqué foofu noonu trespass la def dafa waroon a bàyyi ba am profil leer waaw am lu leer mu doog a def lu moo def waaw waaye warutoon a dem nag si kër bi trespass la def foofu rek laa la mistégué foofu laa ko blémé waaye dafa mel rek xolam ma ko xolam moo jog rek loolu te waaye waroon na moo comme nu ko xaritam bi waxee rek na tey rek mu def ndànk rek loolu la waroon a def waaw dafa def trespass warutoon a dem si kër gi di ko attaque foofu noonu. warut ko woon a parce que xamagul moom la wala du moom joor moom su moom sax nit ñi dañuy fone moom la parce que moom dafa bon bokk mbon gàddu mbon rek di patat di tatatati di dem waaw joor daal moom jaaxal na ma daal jaaxal na ma waaye daal kontaan naa trop nag si moom si Jalika num def baax na trop waaye dafa def trespass série bi neex na am na solo ñu koy déglu di ko seetaan ñun ñëpp am na solo trop trop jërë ngeen jëf waaye. waaw man waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare kenn ku ci nekk ak sa ti ak sa sant di rafetlu série Maîtresse d'un homme marié pourtant seetaan di ko suivre série bu am importance la wax dëgg mm, kii nu mu tudd sax mère bi secret bi doomam ji ba tey ji doom yi fipp génn dem tey bu dajawul woon ku baax koy conseil tey ji mën na dem ba sànku jaare fu dugg ñëwati yooyu yëpp am waaw li ko wax daal mooy mère bi na wax doom ji secret bi yëpp waxal ko ko ci gémminam doom ji mën a xam lépp nu mu ndax moo gën say doom nga nekk moom ay pendant des années nga nëbb ko secret bu mel noonu xamul papaam xamul ko ko violé pare nekkook moom ci jàmm nga loolu neexut loolu mën na tax ma amee feebar yu bari yoo xamante ni si eh, comportement mère bi moo ko indi waaw Jalika tamit li mu def wuru ko woon def wuru woon a fekk ji eh, jabaru eh, xaritam bi ci biir këram xeex ak moom song ko xeex wami dafa xamoom dina ci am problème moom parce que loolu rafetul ndaxte donte dafa doo doomam mënoon naa jar ki péere doomam yóbbu këram dem yóbbu mu faj ko bañ a papa ji faj ba mu wér indiwaat bàyyi ko noonu laajte papaam wax mu xam secret bi ak nim ko ko yooyu na waxtaan ak jabaram ma xam ne moo ko dóor waaye li mu def moom rafet lu ma ko dara dara dara maa ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen sant di leen wax ne film bi daal am na solo lool lool lool.